Fi problème mu APR mooy accessibilité bi mooy suñu véritable problème Ouest Foire ba ñu doon xam ne Macky la ñu soxla man Ouest Foire laa dëkk man fépp laa dëkkee sax Thiès ndax fa laa juddoo fa laa màggee sama yaay fa la du sa fa la màggee sama papa ku ne xam na Diallo Seydou ku ne xam na kon man Thiès am naa fa wàll samedi it laa fa jóge mais fii boo nekkee naan dem naa fii dem naa fële dugg naa fii dugg fee te yow waxoo problème essentiel bi du mën a dem. il faut qu'on se dise la vérité ñu bañ a nax suñu bopp bañ a nax Macky xam ne il y a des difficultés sur le terrain nañ jàppale Macky Sall te wax nit ñi dëgg. tey da ngay couper nit courant mu dem fay au lieu ñu ñëw remettre ko courant am ñu toog 2 jours trois jours duñ ko ko defal nit ñi dañuy frustré dañuy mer te saay-saay na waxul dëgg wax yàq na xel bu ñëpp meloon ni yow Macky bu tëddee na bu ñëpp meloon ni Pape Mayel bu tëddee na nelaw ñun fii duñu nax kenn liggéey lañu xam. ñàkk jëriñu mais bu ñu gisee tey man sama jëkkër yàgg na si politique man kenn mësumaa gis si politique waaye tey su ma jigee def si politique des fois damay fippu parce que yi dafa jara jàppale te nit ñi tamit jàppalewuñ ko wax ji na dina dëgër parce que dëgg luy jóge si xol la yaa urgence élection yi six mois soriwul de te saay saay yaa ngi fi nag di yàq te Macky ngi defar waaye nag saay-saay moo bari doole kon na fi mu ne ni takku moo jot jóg takku jóg liggéey wax ak population bi te bàyyi wax ji waaw nañ jëf dañ naan dama bëgg ki damaa bëgg Macky mais da ngay doo xaar si nguur da ngay jël dindi sa poos defal nit ñi jàppale leen te yàlla tax waaye nag di wax naan naa xaar nguur naa xaar nguur damay xaar Macky damay gis Macky te doo def doo mës a def social da nga koy tàmm ba lay politique da nga koy tàmm sa biir mais ku la konkon nga ni demal si ministre bi wala demal si directeur cabinet bi te yow doo def dara ba pare ne bëgg nga Macky ah non non non bëggoo ko je suis désolé jàppale Macky que dugg si biir nit ñi la chose la base souche bi jaxasoo mais tey da ngay gis kii day bëgg a gis kii du ko mën a gis mu di ko siis siis bi pour lan nañ bàyyi siisante bi tey yaatal xol yi mais sénégalais yi siis nañu ñu baal ma bon nañu soxor nañu iñan nañu te Macky soxlawul lol de xam nga lu mu soxla yaatal yaatal la soxla dama yakamti won jël parole parce sank ba parce que dafa melni ni dang koy raay té na boko bëggé fajj da ngay dem ba bi biir tout cuutal si alcool ba mu saf sap mu wërna waye di raay di raay di raay du mësa wër da ngay sa xaaliss té sa du te fi mu nekk nii loolu la ñu nekkee nañ leen jóg sa ba muy teel jóg jot na.